daal damay ñamale rek programme weeru koor bi macha allah macha allah xam ne du fenn fu dul ci TFM. télévision waaw lu ci ndokkee nag it. Hmm. Euh, firi gént. waaw waaw waaw Oustaz Abdou Karim. Oustaz kenn demul mu des. kooku kooku ci ñun la bokk. Euh, yal na ko yàlla gën a jàppale. amiin ndax moom ah. du jël conseil. déedéet. conseil suñu borom. waaw du toolub suñu borom ku ci nekk baytu bu yoo amoo. conseil waaw ma nga ma nga TFM ah, ak ak RFM mi ngi TFM. macha allah yal na ko yàlla jàppale bu baax mi ngi ndokkal bu baax. soxnaam bu baax a baax a baax. <laughs> Euh, di nag euh, dëggan euh, di gërëm nag man ki nga xam ne ci tubaab kaar mooy nee na jàll sama doom ba nekk ca Gàmbi ndeysaan ak nag nday nday Mbakke doomu Sëriñ Modou Fatou Xëri mm. soxna ma dikk ñang sama doom ndeysaan ndeyte nag ndooy mm. maa ngi koy ñaanal bu baax <laughs> ak nag ki nga xam ne mooy aji di madame Gaye xaritam mm-hmm. di gërëm nag bu baax a baax suñu doom Aminata Tall ca Suisse. waaw weer wi yàlla na ci man amiin mu munuloon ci barke weer wi ci barke weer wi weeru koor ndax seetaanul kenn ndeysaan Alaaji <laughs> eh, Cheikh Diop ak Serigne Bara Fall table Douba mm. ak nag Serigne Fallou Galas Mbacke Maane mm. Serigne Matar Diakhaté mi nga doon wax léegi mm. moom Cheikh Amadou Saliou Mbacke ca Touba yàlla na ko yàlla jàppale ak ay ak rakkam waaw ak ah, ah, madame Jaxate Faat Samb mi nga xam ne doomu ndey la ci laama ñu nga ñu nga ñu nga Tuuba madame Bay ca di sama doom di sama xarit mm. Mm. Eh, ak ki xam ne mooy Mouhamed Niass mu Baay Ibrahima Niass mm. eh, di gërëm na git bu baax a baax tubaarkàlla ajaratu awa gayum soxna asfaalum Cheikh Ibra sama xarit macha allah ajaratu Yande ñang mi lépp waaye di ñaal nag bu baax ki xam ne ci nag mooy eh, Saalum ndeysaan eh, mu Amat Saloum Dieng Mbacke Amat Saloum Dieng ñu eh, ki nga xam mooy Bakar Diagne mm. sunu ambassadeur bu ñëwal boobu yàlla na ko yàlla defal jàmm te teraangaam di gërëm nag bu baax sama xalifa mm. di Serigne Sidi Mbacke yal na suuf Cheikh Abdoulaye Aw mm. yëpp laa koy booleel. ndeysaan ndeysaan Ndeye Mbacke maa ngi ko ñaanal sëñ Mamor Mbacke di ñaanal nag bu baax nag tey fa ma jëm mooy eh, Conakry Alaaji ah. Abdou Thiam. te yaa nga foofu moo fa nekkal Serigne Touba. ndeysaan Ahmed Seck. Hmm. tubaarkàlla di rakki Cheikh Daba Seck. Hmm. Alaaji Dut Seck jur ko. Hmm. Saliou Thiam mooy rakki abdu Thiam. ak ki nga xam ne mooy Khady caam doomam. ndeysaan Babacar Thiam doomam. ak na Khady Ndiaye sama doom jafe nekk ak Modou Ndiaye sama doom. ak Modou. Amadou Ndiaye grand entrepreneur. maa ngi koy ñaanal bu baax. ak soxnaam nag aji Ngom. Alaaji sëriñ Guèye. tey de tey defal la neex ak kii xay xam ne mooy papa Allé demal demal demal Porokhane te lépp généralu Maam Jaara Serigne Mbacke Madina généralu Maam Jaara ca Porokhane maa ngi ko ñaanal baax di ñaan Selbe Diouf di suñu xarit ak ajaratu da Jaxate di gërëm bu baax nag eh, kinne loo mm. sita xaadim mm. sunu xarit di sunu lépp maa ngi ko ñaanal baax a baax a baax yàlla defal ko jàmm. El Hadj Babacar yaruwul de. waaw yaruwul. waaw Babacar ah, yarul na. ah Babacar yarul sëñ Babacar. waaw kan mooy eh, kan mooy sama docteur bu ñaawul bi. Ah. Ndeye Marie. waaw Fadlaye Kina. Amadou Boubacar eh, di ko ñaal ak nag maam Fili ñoom ah. ñëpp. Eh, maa ngi leen di gërëm bu baax bi di ñaal nag it ndey ndey ndey jonn hmm. di suñ doom di suñu xarit. ndey ndeysaan suñu déggal ak nag ndey faal. Hmm. mi nga xam ne El ay Alioune Fall. Hmm. ancien directeur Sénégal la ko. Ndeye Fatou Aline Fall madame Guèye maa ngi ko ñaal baax. ci almadi suñu doom Umu Umu. Umu Idrissa <laughs> Guèye maa ngi koy ñaanal. waaye laaj yaa baax waaw di ko gërëm bu baax a baax. ah Umu Idrissa ak Umu Salamata waaw Umu Salamata waxal la neex. Euh, di gërëm nag it bu baax ku ma jaay na ba maire di gërëm nag samay goro. Euh. maa ngi gërëm Ngoone Njaay ak Nogoy mm. ak Seynabu ndeysaan ñoom ñëpp dëgg laa laaj gërëm it sama soxna ci weeru koor yu ñu macha allah na ko gën a man macha allah amin amin alaaji pa ca palaat yaat na ko gën a man amin amin ya rabbal alaaj Ousmane ambassadeur ndeysaan maa ngi di bu baax dëggan mm. comme lu duuf ci nag wi ñu ne xëjul ci xajandoowul ci cin li waaw xaj na waaye euh, xajandoowul kon foofu laa bëgg rek baare Serigne Maodo si ndeysaan moom alaaji Abdou Assis waaw suñu Serigne mu ma laaj Abdou Aziz daa baax mu baax mi. ak Jamil nag sama lépp. ndeysaan fi may tëjee nag. Ah. mooy Anta Niang moom Serigne Saliou Njoon. Mm. sénateur. Mm. ak wujjëm yëpp amul sax wujju moom. ndeysaan ay rakam ak Niang sama xarit. ndeysaan Ndeye Maguette Dieye député assemblée mm. nationale. Aminta Niang xaali. Ah. sama xarit El Hadj Lamine. da ngay dem congé jeex na foofu la yem neex def. wala ma tëjum <laughs> damay dem congé. El jeex na. ah jeex na xanaa El Hadj Moustapha saw rek nekk ci Abidjan. Ah. maa ngi koy ndokkeel di ko sargal bu baax. El ah. Hadj Babacar Mbaye ne ci tilleen ak laam galion nag. Ah. noo daan solo ndoo bu njëkk maa ngi koy siyaare. <laughs> di ñaanal nag laasana léegi di ñaanal nag xalifa général di Tidiane. wallaay wallaay sëñ Mansour Serigne Mansour si borom daara ji. ndeysaan ndeysaan lii mu ma jox. ndeysaan. dama faa dem ànd xadi faal taal sama xarit. dëgg la di sama lépp dëgg la. Youssou Diop ñëpp ngi toog Ndella Wade dëgg la mu ne dama la koo bëgg a jox macha allah ndax kii ma tuddee sama ndey macha allah da lay seetaan te nga bokk ci léppam solal ma ko dëgg la ni ma def naa ci barke ah, yàlla ci ñëpp barke ku mu solal dootoo rafle yàlla ci ñëpp moo tax zaahiran wa baatinan nag rafetlu wu ma wa baatinan nag amin amin amin rawante nag sama doom amin te taal ndeysaan ndeysaan yàlla ci gën a barkeelu bu baax a baax amin alaaji man daal kontaan naa yàlla la ñaanal nag yàlla nga fi yàgg te yàlla defal la jàmm jubóole ak sa sëriñ amin amin allaaji lafal la cat nag allahuma amin amin ya rabbal alamin fa nga jëmit ak fu mu maa doon rek yàlla na la yàlla gën a wàllu amin amin ya rabbal alamin ànd bi rafet na ndeysaan yàqoo ko amin te lépp ci yow la ndeysaan ndax àndub góor ak jigéen lu ne ngay dégg dëgg la waaye kii seere te arbitre mooy sunu borom. dëgg la laajee moo xam. dëgg la li tax sëriñ di la naw. ak a damaa leen am na lu mu ci bàyyi. dëgg la waaye jigéen ju sell nga. ku rafet xalaat nga. ku yam nga ku teegi ku lëttiwul la. jërëjëf jërëjëf boo ko nag ku am war ko mën a gërëm. jërëjëf laajee tëgguma la day si jikko. dëgg la laajee yal na la yàlla jàppale. allahumma amiin teral la bu baax. amiin amiin amiin yaa nday mbaw jong tam maa bu baax ndax day sama ak ajaratu rama jong di sama lépp wali mata juum macha allah alaaji fa tabarakallah macha allah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 xam nga ni tey soo ma xoolee coussin yu rafet yi allah ji gis nga ni waaw ndey Binta Koora Fall sama doom ah. waaw moom mooy moom moom moom moom offrir yu am solo yi mm. ne lii daal nañ ko moo ko def ci wareef gis nga ko coussin yu am solo yi allah ji waaw ndey Binta Koora Fall ñu ngi koy sargal di remercier Ngoma Thiam euh, lancé na ñu ngi dem waaye écritel bi jàllul Ngoma Thiam Fatim création mi nga xam ne moo ma solal robb bu rafet bi waaw waaw bëri nañu mu solal macha allah Fatim création et déco ah, gis nga ko ah si Cap ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci yu am solo yi muy def may ah Maymuna euh, Maymuna Primavera mi nga xam ne moo nekk ca Point E en face piscine olympique moo ma offrir accessoires yi ñu ngi nuyu ba yaayam Fatou Bakalla macha allah alaaji Fatou May sa doom. ah ma ah woo. May May doomi Yande. waaw Yande sama mag. Yande sama mag Yande ña ci bagage yi baax Maymuna sama doom bu baax. voilà voilà soxna Digane. Uh-huh. Euh, Serigne Cheikh Seenum Serigne Cheikh Fall Baye Góor. waaw. dañuy ñaanal fu mu toll te Serigne Cheikh Fall teg ko loxo. dëgg la di ñaanal nag ndeyam ju baax ji ne ci buntu kër ga te doon liggéey ci liggéey ba tardi. ndeysaan ndeysaan ak ñetti soxna ko yàlla may. ndeysaan te ñu déggoo. raw na nag muy yaayi maam jaara macha allah maa ngi ko ñaanal bu baax macha allah allah. alaaji di remercier bu baax a baax aussi walin faal ah la ren du foulard et du chapeau ma nga ca cité Fadia ñu ngi koy remercier moom ci yu baax yi rek lay dox ñu ngi koy sargal bu baax a baax di nuyu nag tey nag tey dinaa nuyu cinq personnes. ah <laughs> mënul mënul ñàkk. ah di nuyu. waaw la la laama aas nee na une heure nee na une heure la ñuy pare tey dañuy dem congé di nuyu Yacine Gàdduloo ñu ngi koy sargal bu baax a baax nekk ca Parcelles Assainies moom tamit ah xaritu borom këram ah, wax nga Aminata Tall Zurich wax nga Ndeye Fatou Aline Fall Sodo Boy jaamu buur ñu ngi koy nuyu Alaaji di jaarale ci moom nuyoo di nuyu sama askan yëpp sa Sodo Boy ah mi nga xam ne sama doom bàjjan la sama xarit la macha allah di ñaan tamit Euh, Adja Wuli Diallo suñu bàjjan boobu suñu borom bi yéega ko ci àjjana yu gën a kawe ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu buur kontaan naa torop torop torop ci yow jaaree ci yow du nuyu bàjjan yëpp alaaji damay cité ñoom Virginie Diaw Chimère ñoom Koko Diaw Chimère alaaji dama baaxi bàjjan Ndey Mari bàjjan Mari waaw bàjjan Mari jàlloo mm. macha allah euh, euh, Mari Baba Ndiare ñoom ñëpp ji ñu ngi leen di sargal sama xarit ba wooyee Paris Boubacar waaw noo bokk nekku naa kii. ndeysaan ndeysaan ku baax. ndeysaan nee na léegi. Mm. muy doon ubbi télévision bi dina seetaan. ndeysaan ndeysaan ku am jom ku man ku xam nag boppam. dëgg la dëgg la ak maam ndaag. ndeysaan. cadre bi nga xam ne tubaarkàlla nag ko fekk yof bàyyi ko ko fekk te ngij ko fa wallaay wallaay di dem tamit ci ñoom abi jaw chimère ñoom ñëpp ñu ngi leen di sargal euh, alaaji euh, di nuyu ajaratu Vénus ma nekk ca point E kooku tamit suñu yaay la waaw mi ngi lay nuyu bu baax a baax <laughs> ndey Kumba Diop ah chéri Omar Omar ñu ngi koy jéey ah nekk ci yoof ñu ngi koy sargal di nuyu madame Thioune Aïcha Kane ah moom tamit ñu ngi koy sargal alaaji soxnay Cheikh Béthio yëpp yëpp yëpp ñu ngi leen di nuyu rawante na nag euh, député assemblée nationale waaw ñu ngi leen di sargal jeex na tàkk ah Penda Kase ma nekk ca Bambey ak Gorom ñu ngi koy nuyu ànd ak maam Diarra Diaw di nuyu aju Diop nag cuub alaaji aju jóob cuub mi def cuub yu baax yi nee na mu ngi lay waaj a defal bii cuub bu ànd ak tàmba semba ah, day yàgg rek ah sëñ xam naa nag su la indilee cuub nga doyal cuub hmm? alaaji kon daal yal na yàlla def dégg ak topp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué li ci barke alxuraan al karim jërë ngeen jëf